suuf nit ñi ma mani waa mais dëkk bi man attends dafay nar a tàkk wala nu mu demee maître bu fekkee yaa ngi en ligne maa ngi lay nuyu docteur autant pour moi docteur en droit euh, maître Mbaye Cissé bu fekkee yaa ngi en ligne maa ngi lay ziar. waaw Pape Sidi maa ngi lay nuyu. maître euh, ndax ci situation bi ñu nekk ci dëkk bi mooy procès bi nga xam ne ñu ngi ko yóbbu chambre criminelle diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko. mën nañ cee def jàngat bu purement juridique te du laale dara ak politique. waaw jàngat bu purement juridique te du laale dara ak politique xam naa ne du yomb maanaam di nga di nga di nga di nga di nga wax ci orthodoxie juridique wax ni procès yi demee en général matière procès pénaux yi. Mhm. nan lay demee ak buñ la jugé par contumace lan mooy effet yeeg yooyu. mais jàngat ko dans le cadre général tudd ci ku mel ni Ousmane Sonko te doo am opportunité purement politique xam naa ni loolu nekkul loo xam ne lu yomb la. il y a beaucoup qui disent que la justice est instrumentalisée pour pouvoir éliminer des adversaires des adversaires politiques vous en tant que docteur en droit est-ce que vous pensez que ces choses-là sont possibles. waaw loolu possible na parce que boo xoolee par exemple euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu invoquer histoire. interroger histoire avec l'affaire Karim l'affaire Karim Wade xam nga Karim Wade il a été écarté par voie de justice. Mhm. Khalifa Sall il a été également par voie de justice doo ci péremptoire jël ci position mais fait yi également loolu lay wone mhm. parce que boo xoolee Karim Wade à l'époque ministre la woon li ñu ko doon toppee enrichissement illicite mi ngi ko commettre woon ci liñ ci liñ koy liñ koy accuser au moment bi nga xamee ne nekkoon na ministre mais ñu jugé ko di euh, sur le fondement d'une loi spéciale mooy la loi sur la CREI bi wax ci enrichissement illicite mu indi lu ñu naan renversement de la charge de la preuve yow mi ñu jiiñ yow yaay indi preuve yi mu nekk loo xam ni déjà obsolète na loi presque droit de l'homme ak droit de la défense nangootu ko ci jamono bi ñu toll benn mm-hmm. deuxièmement bi mu nekkoon ministre également te ministre normalement haute cour de justice moom moo ko war a juger dafa mel ni ministre yi ñu accusé ci fond forte ñu ne actuellement dañuy opposition bi dugal benn benn benn projet de loi pour pour ce que à ce ñu ñu ñu déclencher mettre en place haute cour de justice noonu la mel ñu dem nga gis ni condamné nañ ko à l'époque juge bi ci parti bi ci boppam dafa demandé woon à que ñu de retirer ko ses droits civiques et politiques mais juge bi dafa bañ buñ ko fàttali ko juge bi dafa bañoon Karim Wade resté toujours illigible bi ñu ñëwee ci kaawu Khalifa Sall aussi xalifa Sall aussi demande woon na ñu parquet demandé woon na à ce que juge bi appliqué euh, article 34 lu ak code pénal bi pour dindi ko euh, dindil ko nangu ko ay droits civiques et politiques dootul nekk électeur dootul mën a voté juge bi encore dafa bañaat mhm. léegi le législateur en tant que tel xam nga majorité mécanique moo nekkoon au niveau de l' assemblée nationale ñu dem fa nag dugal fa benn projet de loi changé Euh, code électoral bi dugal ci article L trente ak L trente bu njëkk ba ci lañ ko modifier en en deux mille vingt et dugal ko def ko L vingt neuf ak L trente. Mhm. muy wax ni nul ne doit pas ne doit doit être inscrit sur les listes électorales pour pour crime. Mhm. léegi mu daal di énumérer ay infractions. wax également benn peine def ko ci benn fourchette ne peine boo xam ne c'est supérieur ou égal à. ñëw na ñëw na plus de deux mois ñëw na trois mois ñëw na également ci euh, article L trente bi euh, peine bu égal à six mois sans sursis ou avec sursis loolu mu basculer ci kaawu ci kaawu ku ci mel ni Ousmane ko mhm. mais kaawu Ousmane ko pour nga adapté ko ak kaawu Khalifa Sall ak kaawu kaawu kaawu euh, Karim Wade day nekk loo xam ne dafay difficile. Mhm. parce que toujours ma doon wax ni man bind naa ci lu bëri wax naa ko nee naa leen quelle que soit la peine. même avec la peine affaire bii ñu koy toppee di affaire boo xam ne crime la euh, même bu ñu ko ci condamné il va rester toujours éligible mais pour li nga wax léegi répondre li nga wax léegi est-ce que mën nañ def analyse bu purement judiciaire sans boole si politique du yomb parce que xa procès parce que boo xoolee affaire bi ni ñu ni ñu ni ñu ko tëggee ak ni mu amee parax-parax ni mu amee yàkkamti mënuloo ci génnee euh, des éléments de pure opportunité politique dafa ba pare dafa mel ni état léegi ñoom nëppatuñu ko sax ñoom mhm. d'après affaire bi nu mu demee nëbbatuñ ko parce que procès kii Mame mambay Niang bi war na la ko affaire diffamation mhm. parce que bi ñu demee ñoom en première instance na nañ ko deux mois euh, avec sursis mais également à une peine euh, comment dirais peine boo xam ne deux cent millions jamais vu également dans un procès de diffamation mhm. yaa ngi dégg léegi mambay Mbaye Niang moom mënul woon def en tant que en tant que plaignant en tant que ki nga xam ne moo dugal citation directe bi moom mënul woon def appel ci peine bi moom ci condamnation pécuniaire ñu gis ni procureur dugal na ci loxoom moom moo interjeté appel. Mhm. mu nekk loo xam ne lu lu lu bees lu également loo xam ni euh, pour nga génn ci politique dafay nekk loo xam ne dafay jafe parce que procureur amul woon prérogative pour def ci parce que c'est une affaire purement privée. Mhm. affaire bi laalul ordre public procureur mën na toujours di agir loo xam ne dafay laal ordre par exemple bu ñu ne woon affaire bi commettre nañu fii benn meurtre là automatiquement ça touche à l'ordre public à l'ordre public et que procureur moom mooy avocat général moom dafay autosaisir mais fii affaire Mame Mbaye bi pour ni mu ci defee appel ak ni ñu gaawantoo procédure bi day gis ni am na leneen peut-être lu nekk ci gannaaw te ñoom sax d'ailleurs nëbbuñu ko parce que man si may basé ci ay fait mooy première condamnation maître Olivier Sur ci boppam buñ ko fàtte man je n'ai jamais minimisé déclaration. Mm-hmm. parce que moom moo waxoon ni carrément. condamné nañ ko à deux mois avec sursis yaa ngi dégg ak deux cent millions mais il reste toujours éligible te nekk loo xam ni moom waru ci woon prononcé parce que avocat wu partie civile bi la mm-hmm. xam nga loolu moom concerné wu ko éligibilité am ñàkk éligibilité am donc bu waxee il parle au nom au nom en tout cas de de de de de de Mame moom lay waxal donc bu waxee da ngay gis ni également loolu moom moo nekk ci moom mooy moom mooy intention bi mais par exemple son Sonko fii mu toll parti euh, Pastef am représentation nationale am représentation locale organisé wu politiquement te poli parti bu organisé woo euh, euh, di financer boppam également par rapport a ses modes de financement ak ni ñu structuré woo am intention dem élec dem élection présidentielle deux mille dix neuf dem élection député dem élection également locale mais parti bu mel noonu ak ak ak ñu ko topp ci jeunesse bi mais boo boo ko bëggee écarter politiquement <laughs> mais loolu ça va ça va créer des difficultés dans le pays n'est-ce pas docteur vous êtes docteur en droit Euh, mm-hmm. Ousmane Sonko n'a pas pu finalement assister à ce procès qui aura lieu su ma juumul mm-hmm. ñu ngi tribunal jamono ji may wax ak yow am na suñu mm-hmm. ndaw sax bu tudd Amadou Diaw mu ngi fa ci kanam dinañ jokkoo ak moom euh, dites le droit rien que le droit parce que loolu nga jàng vous êtes même docteur en droit Hmm? ñàkk a teewu Ousmane Sonko lan la ko mën a jural qu'est-ce qui pourrait euh, en découler par rapport à la justice su fekkee ne teewul ci bu ñu koy àtte ci chambre criminelle waa ouais, effectivement sa interrogation bi moom moo ma orienté au bi moom allô allô oui on vous entend très bien docteur mais cette interrogation je voulais dire purement la la, la le côté juridique mais cette interrogation bi moom ma orienté ouais. waaw mais mais mais par exemple ci cas de figure bi lan moo ci mën a tukkee ci ay loraange ci Ousmane Sonko. waaw dafa nekk ci cadre nee na moom nee na moom sentir na ni actuellement moom dañu salfaañi ay droit mu nekk ci désobéissance civique mais dootul répondre justice. waaw léegi bu ñu demee devant le juge dans un procès criminel juge bi mën na juger nécessaire à ce que ni nañ décerner ko bu ko woowee parce que juge bi day def présentation day woo. partie civile bi woo ñi ko teew ñëpp ak ñi war a teew mu def benn benn benn benn benn rappel historique ci ci affaire bi par le biais du greffe mu woote nag bu woowee Ousmane Sonko nekk ko mën na ko décerner benn mandat ne comme niñ ko defee woon boo fàttali ci dans le procès de Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires mhm. niñ ko décerné woon benn mandat dame ne moom ñëwoon na mais dafa doon bañ dugg ci si salle bi ñu forcé ko indi ko mu ñëw toog devant le loolu juge bi am na prérogative boobu mhm. léegi juge bi également euh, mën na décider également continuer pour continuer jugement bi sans pour autant mu na ko mandat mandat d'amener loolu appréciation souveraine du juge la juge bi mooy apprécier souverainement parce que moom moo yore police de l'audience mm-hmm. bu xoolee ni également cas bi particulier na de telle sort que dafay mën a def benn audience spéciale juger affaire bi mais fin bi également conséquences yi d'habitude toujours ñi nga xam ni juge nañ leen par contumace mën nañu alourdir peine yi mën nañ leen également lancer benn mandat d'arrêt soit interne inter euh, interne wala internationaux boo xoolee dans les procès pénaux yu bëri même avec seen après ses complices ak euh, ñi ñu accusé woon ñoom également dañ leen lancé woon mandat d'arrêt international maanaam fu ñu la fekk rek dañ lay jàpp du dëgg. maanaam contumace boobu ñu dégg tey ci suba man muy lu baat bu yees ci man ndax bi ñu duggee ci procès yi ñu rendre public ba léegi ay baat dafay ñëw acte nit par contumace loola lan la. waaw ñu ñu ñu jugé la par contumace loolu mooy comme comme comme euh, juridiquement mooy maanaam ñu jugé la te yow teewuloo ci procès bi dañ lay jugé à votre absence. te loolu day gën a métti ci ki ñuy jugé. waaw loolu mën nañ ko euh, def entre guillemets comme ci genre circonstance aggravante su fekkee par exemple ki nga xam ni moom la ñuy jugé moom nekku fa dafa bañ na du ñëw. Mm-hmm. loolu juge bi en tant que mën na ni kii daf ma défier. de telle sorte que bu rendre jugement bi mën na alourdir également peine yi def ci ay peine également supplémentaire par rapport ak loolu mooy lancement wu mandat d'arrêt boobu wala beneen boo xam ne moom mën moo koy apprécier souverainement loolu mooy jugement par contumace. si le contumax ne pas là on le juge par contumace et la peine ouais. est très souvent très lourde te dañuy boole ak ordonnance de mandat d'arrêt international fu ko alkaati fekk mën na koo jàpp jébbal ko yoon du loolu la. waaw loolu loo loolu la en principe juge bi moom mooy décider ne daf parce que bu ñu ko inspiré woo également même ci procès pénal bi nga xam ne amoon devant les chambres africaines extraordinaires ISEN après defoon nañ ko mandat dama ne force que mu ñëw devant la barre. Mhm. mais ñi nga xamee ni teewuñu woon également lancé nañ leen benn mandat d'arrêt ñoom tam bi nga xamee ni jugement bi jeex na. docteur en droit vous allez terminer avec cette dernière question est-ce que justice am nañu possibilité dakkal coono yi sénégalais yi di dund ci ñetti at yi. mooy coow li am ci diggante Ousmane Sonko ak aji Sarr est-ce que am nañ prérogative bu dakkal lépp est-ce que la justice peut arrêter les euh, les mots MAUX que vivent les Sénégalais en est-ce que mën nañu jël décision boo xam ne lépp dafay jaare ne ne ne teg jàmm rek am ci réew mi est-ce que mën naa nekk waa xam nga justice d'ailleurs en principe loolu lañ koy doyee justice moom moom moom bu taxawee ci principe taxaw en tout cas ci ay prérogative am taxaw ci liñ ko doon doyee mooy par exemple bu bu mbir situation demee ba jaxasoo ba jaxasoo justice mën na ko dakkal mais dakkal bi koy justice di dakkal tey tey juge mënul ñëw ne non non réew maa ngi tàkk réew maa ngi am ay problème non non nañ ko arrêté loolu justice mënu ko parce que affaire bi dem na également également devant la table du juge loolu avant rek lañ ko mënoon mais comme yegsi na justice li mu mën mooy juger ko vider ko mais fi mu koy fi muy rendre justice fi muy fi muy fi muy organiser affaire bi de telle sorte que dina mën a limiter les atrocités maximiser les chances de la paix mooy mu rendre justice bu équitable tout en respectant la les procédures mais également nii nga xam ni def nañu def nañu enquête préliminaire bi ñëw ñëw ñëw ñëw également def euh, comment dirais-je instruction bi yaa ngi dégg ak témoin ñëpp wax déjà mu yegg si devant la table du juge juge bi amatul benn prérogative lu dul da koy mën a juger rek tuddee ko mu jeex. docteur Mbaye Cissé docteur en droit maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yi nga ñu indil tey ci suba gi vous avez vu on n'a pas vraiment c'est ça ça fait mal ah. ça fait froid dans le dos ce qui se passe au Sénégal ku ne yëgut li xew mooy nii euh, nihiliste bu extraordinaire ga ay biens matériels ñu ngi yàqu. ay doomu aadama ñu ngi ñàkk seen bakkan procès bi téye na Sénégal en haleine pendant trois ans de 2021 à 2000 euh, 23 euh, c'est vraiment extrêmement dur à gérer et à supporter léegi nag euh, am na ñoo xam ne dañ koy def euh, cheval de bataille wala dignité wala sama ngor mayuma wala non il faut que partie yëpp lâcher du lest il faut que am ku bàyyi dara mm-hmm. il faut que ñëpp am ku nangoo ba dara mm-hmm. mooy njiitu réew mi mhm. mooy Ousmane Sonko mhm. mooy yoon il faut que ku nekk bàyyi si sa pouvoir walla sa force mhm. benn portion bu ñu bëggee cohésion sociale bi dellu si waat et ça va être très difficile je vous parlais tout à l'heure de Amadou Diaw qui est de l'autre côté du tribunal de Dakar parce que procès bi mën naa am comme mën nañ ko renvoyer lu ci mën mënti am nous avons Amadou Diaw au téléphone si y a possibilité de l'avoir ngir mu yeggal ñu euh, ngir mu yeggee ñu la fa xew Euh, dina dina dina gën amadu yaa ngi euh, ci ligne bi. Hmm. waaw dafa mel ni Amadou jotaguñ ko euh, lii am ca tribunal bu Ndakaaru lan moo fa amagum pour le moment on ne veut pas vraiment mbir yi xew ci réew mi ñu def comme si de rien n'était hmm. dara amul ci réew mi daal maanaam loolu daal man damaa xamul na ko nit mën a laye rek. Hmm. waaw Amadou bu fekkee jot ngeen ko ngeen ngeen dugal ko mu nuyu ma na Amadou ne salaamaaleykum rek comme ça ñu dégg ko bàyyi mbër gu comme yaay kilifa ci jotaay bi réew mi ni mel ñitti na lool. dëgg la de na waar lool te waxoon naa ko ci tàmbali ba mooy lu dul jàmm jàmm ko gën. jàmm nag mbir la moo xam ne fa mu nekk sorewul te ña ko mën a jot am nañu moyen yu jot ko. mooy euh, grandeur ci nit. waaw grandeur nit mooy xam. fi mu toll xam li mu li mu toll nu mu mën a toll mu xam ne lii am na lu muy def loo xam ne moo koy moo koy teggi wala moo koy wàññi wala moo koy raxas. defe naa amadu moo nekk en ligne. Hmm. Euh, ñu jël ko bu fekkee Amadou yaa ngi may dégg maa ngi lay ziar. Euh, Pape Sidi delloo ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm amadu sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah yaa ngi tribunal bu Ndakaaru. Mm-hmm. ndax euh, mën nga ñëw décrire ambiance bi ak atmosphère bi la fa am jamono ji. voilà merci beaucoup euh, Pape yi maa ngi lay nuyu di nuyu euh, téléspectateur u 2STV euh, comme ni nga ko waxee rek tey jii mooy bisu procès diggante kii Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu ngi fii ci tribunal nag ndëgë ni 7 heures 30 minutes mën nañu wax ni nag jamono ji dispositif bu am solo moom moo fi nekk ci takk der yi li ko bàyyee ko yoon bi nga xamante ni. bu fekkee da nga jóge ci corniche bi bu fekkee tamit da nga jóge ci biir euh, Médina wala ba ci rëbës maanaam fépp foo jaar rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi euh, jamono ji ñu ngi fa fees dell dell dell waaye nag mën nañu wax ni nit ñi euh, ñu ngi dugg ak génn waaye dispositif bi dañ ko daal di barricadé entrée ak sortie yi maanaam nit ñi ni ñu duggee ak ni ñu génnee tey ji tamit dañ ko daal di soppi ndax procès bi Euh, kii di maître El Hadj Diouf nag mën nañu wax ni jamono ji moom moo njëkk fii ci tribunal bi euh, ginnaaw bi mu ñëwee nag fanweeri simili si ginnaaw rek la moom Adji saar mi nga xamante ni moom moo tuumal Ousmane Sonko euh, siif ak menace de mort moom tamit daal dina dugg si ci biir palais de bu Dakar waaye mën nañu wax ni nag du ci porte bi la jaaree comme ni ñu koy faral di defee ci procès yi nga xamante ni moom moo moom moo moom moo bi mu fi bi mu fi ñëwal di wuyu si ki nga xamante ni moom moo di doyen des juges waaye ci porte bi nga xamante ni moom moo nekk si ginnaaw fa la jaar certainement Euh, pour teew lii di presse bi waaye ñu ci mën a jàpp keneen ki mooy Ndeye Khady bi nga xamante ni moom moom moom euh, salon de beauté bi ñuy woowee Sweet Beauté moom tamit mun nañu wax ni jamono ji moom moo ngi ci biir ñi ñu si gisagul rek mooy atek mooy avocat wu moom Ousmane sunko waaye li leer ba leer mooy maître El Hadj Diouf avocat kii di